Boy Dakar a booy waral Boy mi ci dix victoire yi benn yoon la mos a dégg mu ñal moo ko daan waaye ki mu dajal day bërekat di ndaanaan Ronaldinho moo doonu songaar ngay waaye loolu lépp dina leer dañ mu nuyoo gars yi may leen ñu rek Boy Dakar la ñu waxal ñu ngi lay nuyu di la siyaar waaw bisimilah anzu billahi mina sheytaani rajim gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant ñu fi teew ñëpp di sant sama papa Alioune di ko sant ko sant di ko sant waaw. di ko sant bu baax sama papa Alioune Sy maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a a baax waaw aw ma fayam tey jii tey su ma génnee si su ma génnee dem si àll ba rek grâce moom la moom moo ma jox xaalis mu ne ma demal nga préparer sa combat kooku aw ma fayam ma jël oto def si essence. dem ma ñëwaat encore tamit waxaat ko sama soxla ma ne ko damaa soxla lii ak lii mu bind sec jox ma mun a demal nga préparé waat te ba léegi nii moo ngi xaaju naan day damay gën a jàppale kon kooku aw ma fayam waaw di gërëm tamit sama yaay Ndeye Sall Diop Dieng waaw Ndeye Sall Diop Dieng aw fayam waaw Jean Baptiste Diouf ñoo ngi koy sant sama papa Djibril Wade maa ngi koy nuyu moom tam maa ngi koy sant di ko gërëm waaw sama turandoo sëñ Babacar si yàlla na yàlla yokk leeram fële sa maa ngi nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu waa Aziko bi ñoom sal euh, ñoom naar siis waaw aw ma seen fay ñoom fayal sans loi njaago yi maa leen sant bu baax ñoom Soro Malick Baye Fall yi askaabul jannatu aw ma seen fay boo Dakar ñëwal si lamb ji combat bi waaw bu ma paree moom moo yàgg kooku maako ko mën maa ëpp doole te di ñaan yàlla yàlla yàlla moo mootal lépp mu nekk ndam incha allah combat bi mu taxee ko léegi ci loo nekk ci loo liggéey jaamu yàlla jeex na amul leneen préparé sama kilifa nekk sama gannaaw loolu la rek. amul lenn yaa ko mën yaa ko ëpp doole foo ko teg. loolu noonu dama ko liggéey xam ko. waaw parce que man yàgg naa compétir man bëre dóor jaaxaluma bëre mbapat jaaxaluma di nuyu tamit sama woykat yi waaw Mariama Jaakeer Mia ak yaayam ak ñu mu àndal ñëpp ama seen fay depuis ñaaxaar lañ jóge ñëw ba fii yes. ba xeebuloo ki ngay bëreel. ah. ba ki ngay bëreel. xeebu ma ko. xeebu ma ko damaa gëm sama bopp man lu ma gëm laay wax lu ma gëmul du ma ko wax. Ronaldinho di mbër moo xamante ne mbër a dëggal man dëggal naa sama bopp yaaga bu ma jëlee avance laa dëggal sama bopp te Ronaldinho nañ sambu jaaga xeex gars yi dañoo fay seen xaalis pour ñëw euh, seetaan combat bu neex nañ taxaw xeex fayit lu neex ma jàpp ko daan ko wan ko maa ko dàq bëri maa ko ëpp doole de bu ma jëlee avance bi laa pare parce que du ma jël avance di nelaw pare naa pour lépp pare naa pour xeex pare naa pour bëre di ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam yàlla na ma sëñ Babacar wallu si. est-ce que xam nga combat bi importance bi mu am sa carrière. importance mu am sama carrière moo tax fii war a fii fii mel nii tey. Ah. parce que ñoom seen jëm boobu xam nañu importance mu am. moo tax fii mel mel nii tey. waaw te beneen damay daan incha allahu rabbi fii day gën a feesaat gars yi gën see ñëw gën see jàpp ñaar daal di neex. xeebu ko de maanaam sama gëm laa wax. yàlla ma yàlla fekk sama gëm-gëm loolu la rek moom gëm-gëmam lay toog di wax man may wax sama gëm-gëm yàlla na yàlla nangu sama gëm-gëm mu may ma si ndam set bi wecc dama ne lan ngay xaar si ñaari tali Grand Dakar bi si tëri ñëpp nga xamante ni ñooy dooleel Boy Dakar waaw di leen waar rek ñu xam ne affaire bi métti na trop fu may waxee yow nii fu may waxee yow nii 2500 2500 laa dese ndax combat bi juróomi téeméer waaw kanji kanji kanji maa ngi lay woo si combat bi kanji production kanji production waaw borom bâtiment yu baax yi. maa lay woo TDR. ñëwal jàpp ci combat bi comme sama papa Alioune si lu mu si jàppee. day xeex damay xeex damay bëre. waaw ñun gëstoo lañ def. MDB bu la plan rouge. ragaluñu fu ah. lu nekk mun naa ko daane. mun naa yoru jàpp ko mun naa def lu nekk daan parce que man loolu nattu la moo tax sama jàng yàqu kon nag man lu ma neex laay bëree maanaam dama ko mën dama ko tarbi Badou ñëwal waaw Badou ñëwal Dakar mais gannaaw buñ la nuyoo di la laajaat ñu ni que waa Grand Dakar ñaari tali ñëpp jóg mëri jóg indi seen soutien sànq ñu gis sama caat sànq ba tey mi di appel vidéo loolu lu mu la def waa Grand Dakar ñëw jóg topp sa ginnaaw pour wane ne mobilisation bi defoon dépassé bii moo koy am. Euh, damay wax alhamdulilah rabbil alamin tari loolu la ñu manqué woon am nañ ko di gis Lac Rose di dégg caat ñu koy ñuy teew fii di dégg suñu mbokk mbër yi lii la ñu manqué woon ñun dix mille pour cent sax na tey te bu soobee yàlla tànk yooyu maa koy dox te day sax raxloo suñu mag yàlla ko yàlla may ndam. Sitor yal na ko yàlla may ndam booy mënu ko yal na ko yàlla may ndam Malal ñaan yal na ko yàlla may ndam dañoo réeroo woon rek mais ñàkk a waxtaan moo am moo amuloon mais léegi déggoo nañ ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te yàgg nañ ko bokk léegi nag ñoo bokk dañu kon ne bokk ndey bokk baay. waaye dèjà làmb ji xam nga fi mu la jëlee. Pa Abdou Ndoye yi ñu ko gërëm moom tamit xam nga jàpp na si waaw Pa Abdou Ndoye doomu ndey góor gi waaw. waaw indi enveloppe waaw baax na Daouda Ba ñoo ngi koy sant di ko gërëm Baba Ndiaye Pape Ndoye euh, Baba Ndiaye journaliste sant nañ ko gërëm nañ ko waaw geste yu nafet maxaa depuis France waaw à travers Facebook bi jàllale na na gars yi ñëw jàpp bu baax a baax a baax waaw Abakara aw ma fayam yàlla ko yàlla fay waaw maxaa fu mu la jëlee fu mu la fu mu jëmee wax naa ko waxaat ko waxaat wax naa ko waxaat ko su ma paree fii nii dafa am kan bokkal yoo xamante ne damay jëm ci ñoom te dama koy wax du ma ci laaxoon. Bombardier Tapha Tine nañ pare. Modou Anta na pare. waaw Tidiane Faye na pare. pare nga pour affronter leen. pare naa pour affronter leen man ragaluma fu ma jëm man mbër laa mbër laa de barki alxuraani karim nañ ma jàppale wallahi mbër laa. booy Dakar nga am lu la doy muy Ronaldinho. waxal ci Ronaldinho bëre. mbër laa bu ma juddoo sama maam bu jigéen. te nee na nga wàññi wax ji nee na li ngay wax dafa bari nga wàññi wax ba Dakar loolu noonu mbër laa su wax la wax wax la quoi waaw di ñaan yalla yal na yàlla motali yoon bi. Boy Dakar pare na ci nga xamante ni ku nekk mi ngi yóotu koo xam roi des arènes tey Boy Dakar pare na ku ñu indil ñaar tari roi des arènes. bu soobee yàlla bu soobee yàlla ndam dinaa leen ko indil te day continuer ba faw indil roi des arènes ñu koy bëggee fekk Alioune Ciss doon na président de la république. incha allah waaw di sant ñëpp. Boy ne topp si la booy la violence kenn bañ a xeex kenn bañ a damm ay ses instant kenn bañ a xuloo kenn ñëpp mel xam nga ñun tànk jàmm rek la ñuy dox tànk jàmm la ñuy dox fii booy duñu sàcc duñu agressé waaw fii déemu côté lañ gars yëpp waaw suñu grand Daouda Ba tamit ñëw na ñu ngi koy bu baax a baax waaw arrière leen arrière leen mu ñëw. waaw waaw waaw. Aliou waxee mujjee wax moom Ronaldinho. Ronaldinho incha allahu rabbi ne yi mene mi bi ni ala soona mu soosa bone lamata ko simi nangi lay seetaan moom deful open press simi mi libété waaw ade na rendez-vous la woon jërëjëf Ndakaaru borom daal yi merci gis naa daal yi daal yi mbawar di woowu waa Saloum kër ma enero.